illallah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 لا إله إلا الله لا إله إلا wasalaamu ala rasulillah yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe mbokki Sénégal ak bitim réew noo ngi leen di nuyu fii fi Touba nekk fi wetu Serigne Falilou Fall jëwriñi Cheikh Modou Aminta Fall di jëwriñ maam Cheikh Ibrahima Fall Baol na ci jamono yi nu toll nii di waxeet ci ndigalam ak ndigalal jëwriñam ji ñuy wax seex Moustapha Fall Falilou ak mboolem njabootug Cheikh Ibra gépp lii ngeen gis nu nekk ci te Serigne Falilou Fall di jëwriñ ji day ndigal lu bàyyeekoo ci Cheikh Mountakha Mbacké mi fi sëriñ Touba. tàbbi ci sëriñ Cheikh jëmb mi fi maam Cheikh Ibrahima Fall mu jaarale ko ci jëwriñam ji nag di Cheikh Falilou Fall Cheikh Falilou it jox kàddoom Cheikh Moussa Fall jëwriñam mu yëgle ko murit yi jóg murit yi nag bu ñu dee wax murit yi dëgg dëgg dëgg mën naa ne Baye Fall yi tax ndax bu ndigal jógee xel yëpp dem ci Baye Fall kër goo fi demet ka fa ëpp positif ëpp fa njariñ ëpp fa yërmande bu ñu seetee màndargaam bay Faal lañu koy tudde sëriñ bi nag woote ba noppi jiitu ca woote ba ndax woy juram di dafa ma dafa ma sa dégg mu ne moom Seex Falilu Faal jëwri ja ma nga xamante ni mooy jëwriñi sëriñ Fallu mii toog daa waxoon ni digle ak tere yombul ma ne ko loo ko tax a jafe mu ne digle loo deful ak tere loo loo bawul kenn mënu ko ñoom ñii nag lu ñu ndigal lu ñu am bu ñu ko diglee ñoo fay jiitu ñañ fay woo loola tax faaw nit ñi wuy si waaye dara waralu ko nag lu dul gëm nañu li Serigne Touba wax moom i borom yoon wi te Cheikh Ibra xam ko li Serigne Touba wax yàlla da koo defal wax de awaa ije la si daamoo bi xidmati wa ablahum maaraamoo loolu gëm nañu ni Serigne Touba wax na ko boromam gëm nañu ni am na. moo tax Baye Fall taxoo di wéy ci ndigal di liggéeyal Serigne Touba rawatina biir Touba gi nga xam ne nag moom la yàlla sédde sëriñ Touba te ndigal boo gisee ñu di ko wax des ko dul dégg di ko niig niigal suratul ijaaba bi Serigne Touba bind mooy gaaw a wuyu ab woote bu la sëb Serigne woowee bu fa nekk naan ci temps yi wala feeg suba. ñoom xamuñu loolu daal di jóg rek jëm ca ndigal la doonte guddi la te duñu jàmbat aw mar mbaab xiif loolu laa bëgg ñu xam ko moo tax sëriñ Falilou Fall jëwriñu Cheikh Mouhamadou Binta mii ànd ak jëwriñam Cheikh Moustapha Fall ak mboolem këri Cheikh Ibrahima nag kenn desul ñëpp ngi teew ci waar wi di gas lii nga xamante ne dañu koy defare soo fas ngir bëgg nit ñi am fu ñu jaar te duñu jàmbat dara ndox yi taa ci dëkk bi ak taq-taq yi bu ci waa kër Cheikh Ibra waxul du deñ moo tax lu yëngu lu ne dañu naan nañu ko wax Baay Faal yi ñu ndikk defal ko Serigne Touba waaw kii def bëgguk Serigne Touba nooy def ba defee ne du am ak bëggam Serigne Touba la yàlla gërëm yonent bi gërëm ko mu wëlbatiku nag am jëwriñ ji toll ne Cheikh Ibrahima Fall Baol Mouridine Cheikh Ibrahima moom wone nu ñuy war a defal Serigne Touba Serigne Touba tëbul rek di liggéey de déedéet daa dem ba am ko xam nu ñu koy liggéeyale mu di ko liggéeyal ba mu xam ne nii la bare waa na ko daan ñëw ci Serigne Touba te boo dikkee boo tolloo ci jàng da lay yóbbu nga jànge waaye bu xamee ne sa sa sa sa saw melo ëpp na jàng mënatoo koo def. mu boole la foo xam ne fi boo fa nekkee boo fa jógee ku jàng dana la ñee ndax jàng loo gis di nga ko xam waaye boo mën a liggéey tànn ak yar ak teggin loo bëgg am ko